c'est des réformes qu'il faut faire de l'administration mhm. c'est important maintenant contrat yi réew mu nekk comme ni ma la wax déjà exécutif booy def contrat bu doon contrat yi dañ ko yóbbu assemblée waxtaane ko ne dañu bëgg a signer ak Petrotim voilà les conditions et tout ñu waxtaanee ko assemblée joxe avem ñu doog a signer mais defuñu ko man waxuma la doon j'étais j'étais secrétaire général du ministère de l'énergie ñun contrat bi dañu ko indil Petrotim mais on a refusé de signer on a dit on ne signe pas contrat. d'abord la loi bi doon def répartition dix pour cent quatre vingt dix baaxul woon. schéma yi ñu doon contrôler li gars yi di fay dépenses yi ñu doon def pour recherche pétrolière dépenses yi dafa wàññeeku woon totalement parce que y avait de nouveaux systèmes. avec des sismiques 3D des bateaux yoo xam ne ñëwoon nañ fi sax visiter. donc les charges n'étaient plus les mêmes. d'accord et on avait dit nañu certifier suñuy réserve balaa ñoo dis balaa ñoo signer. nga xam li nga ba dem ba ba proposer ay cabinet pour ñu certifier ñu lan nga am balaa ngaa négocier nit nga ne ko lii laa am waaye sa kër am na pétrole comme munoo koo génne man mun naa ko génne léegi damay jël quatre-vingt-dix pour cent nga jël dix pour cent ñu ne loolu baaxul ñu ne léegi nañu def certification réserve ma ñëw ne la sama kër am na pétrole potentiel bi lii la donc première réforme bi mooy li ñu am ci ressource yëpp day am benn document à l'Assemblée nationale boo xam ne document de certification ñu ne lii la ñu am certification avérée lii la recherche en cours et cetera ñu def un tableau général des recherches des ressources humaines lépp lu luñ ci génne structuré ci financement ñu jël ko comme recette def ko ci budget bi benn contrat yi ñu signé ba pare contrat boo gis dafa am ay clause compromissoire maanaam dañu naan bu amee conflit dañuy wuti arbitre damay woo jëwriñ yoo nga woo Cheikh Touré ñoom ñaar ñu dajaloo woo keneen mu présider ñu def arbitrage ku nekk indi say argument bu fekkee contrat bi dafa déséquilibré moom la ñuy wax les contrats léoniens clause hardship yi moo lay permettre nga remettre ko en cause si tu arrives à démontrer que ni ñu ko signé contrat bi dafa déséquilibré dafa am toute une jurisprudence am na proportion yi bu ko amee rek dañuy considérer que c'est déséquilibré yow boo signé contrat ba pare ne ko waaw man signé naa yow contrat mais aw ma benn maîtrise ci quantité yi ñu démontrer que ci contrat bi amul fenn foo xam ne fii garantir nañ la nga am maîtrise ci quantité pétrole yi. arbitrage bi da koy kase. d'accord ne nañ ko rectifier. donc loolu c'est pas le problème li bon kay mooy nga ñëw ne jël naa pouvoir li ma fi fekkoon yëpp naa ko sànni fële. mais am na contrat yoo xam ne jarul sax discuter. soo ñu xoolee contrat ci pêche bi moom. boo ñëwee boo ñëwee da nga leen di woo rek <laughs> saa yi lii nag ñoom ñoo njëkk a bàyyi sax. <laughs> xam nañ li ñu signé c'est pas logique quoi exactement c'est loolu. amul problème. d'accord et nga ma nga baal ma. ñëw ñëw xam nga loolu gars yi dañ ciy tiitalee nit ñi naan la woy après dañ lay sanctionné ArcelorMittal ñun li ñu def moo tax ñu sanctionné ñu ñun dañu signé nit contrat ñu jékki-jékki bàyyi ko fa dem uti keneen ñun ñoo tooñ kenn ki. keneen ki tooñ ñu. donc c'est pas la même chose. ñun dañoo def lu ñu neex. ànd ànd ak nit signé waa ji jékki-jékki ñu jékki-jékki signé ak moom waa ji am difficulté nañu fa ñukk wala ñun ñu ne ko fu ñu ko dem uti keneen. loolu ñun ñoo tooñ. léegi nag pour bañ a tiital nit ñi il faut ñu comprendre ne ñun lii dañ ko yàgg a def. dañ ko yàgg def. defar ko ay réew. ñu fekk contrat bu jagadi ñu jagal ko. mais li ma la ci mën a wax comme expérience. amul benn bu ci indi problème. parce que ñoom bu ñu xamee ne jagul rek dañ naan nañu renégocier. ñu renégocier jubbanti ko. da koy def parce dafa am ay règles droit international. parce que entreprise bu fi signé contrat. lor benn réew ba ñëpp xam ne danga nga noot réew mi lor ko dafay yàq sa réputation ci yeneen dëkk yi ak ci yeneen contrat yi nga am te dafay am cascade boo xasee ba am conflit ak kenn ñeneen ñëpp dañ lay moytu. moo tax affaire u état aussi du caaxaan. c'est du sérieux waaw c'est du sérieux voilà. alors lu ne euh, waaw je ne balaa muy jënd point boobu ci douane ndax tey après damay dem ci moom waaw parce que xam nga comme moom jaar na douane te ñun immigration xam nga chaque fois dañu am rapport ak douane mhm. parce que importation bi dañ koy def lu bari mhm. bon man bokk na ci raison yi ma téye Sénégal euh, depuis deux ans muy que dama euh, am conteneur bu ma indi mm, Grimaldi mhm. woow ma quarante huit heures avant ne ma sa conteneur day yegg si j'ai fait ma engagé transitaire waaye mu dem def gaynde ba war a enlever ñu ne ko noo jotaguñu release bi la ma xam bon en tant que xaw ma la mooy release ma ne transitaire bi lu xew ñu ne release bu ne ma bon c'était un vendredi leen di ma dem euh, Grimaldi ñu ne ma non jotaguñu release bi ma ne leen luy release mooy droit d'enlèvement bi ma ne leen lan mooy problème bi Grimaldi ne ma fii de Dakar amuñu pour informer la wool sa transfert fële je que mais bu ngeen ma informer wul problème bi naka laa koy mën a résoudre tu vois euh, ma woo transfert bi foofu transfert bi ne ma mais ma maa am problème ak Grimaldi bu Italie ok <laughs> tu ndekete moom moo fayul kotaawam léegi comme fayul kotaawam Grimaldi bu fii moom ñoom dañuy téye sama conteneur comme garantie te man fay naa transfert boobu léegi en tant que citoyen je me suis retrouvé ci benn situation boo xam pour man dama subir injustice parce que man awma contact direct ak Grimaldi bu Italie mais sama intermédiaire bi su ma transfert transfert bi may engagé foofu moo am moo am moo am rapport ak moom donc man bu ma signé rapport ak transfert bi ba kii ba pare amatuma lenn lu may pour man kii naa su may responsabilité mais le fait que transfert bi foofu respecté wul ay engagement am Grimaldi fii Grimaldi tenir sama saisir sama conteneur téye ko man mu mel ni man conteneur boobu moomatuma ko. parce que si ñun te wuñ contrat ak man. je ne sais pas où aller. te loolu bëri na ci. Euh, bëri na ci euh, dafa <laughs> mais xam nga problème bi mooy da nga am plusieurs contrats. Mhm. yow ak douane li ngeen seqoo. Mhm. mooy sa marchandise ñëw na. Mhm. calculer nañu droit yi. nga jaar ci transitaire. transitaire bi. wax la li nga war a fay nga fay. Uh-huh. nga war a dem enlever. Uh-huh. boo ñëwee nag di enlever dañuy xool ndax durée bi fa sa marchandise toog. Uh-huh. fay na nga ko ba pare. condition yi mu ñëwee. contrat bi nga signé pour ñu transporter la sa marchandise est-ce que amul problème. bu boobaa yoonu doon nekkatu ci. léegi nag loolu yow yaay subir conséquence loolu c'est un vrai problème. ba léegi. même marché yi nga xam dafay toog lu yàgg. ñu war a def vente aux enchères douane ne da koy jaay. mais waa ji nga jël place am téye ko pendant des années. pendant des mois. dafay am revendication. loolu c'est des problèmes yoo xam ne vraiment. c'est très difficile yu fréquent la quoi. yu yu non et c'est et c'est c'est grave. parce que yow ci sa bopp dangay ngay nekk victime. yow soo nekku ci. te comme bateau nga yore am affrètement da ngay jaay espace. da nga man bateau laa am. tant d' espace laa am creux laa am. nga fay léegi ki ngay déport ki ngay transporteur bu la fayul. benn benn possibilité mooy am mooy nga téye marchandise pour mu bañ a dem. donc loolu mooy problème bi ñu bare dañuy am victime yooyu et ça c' mais foofu problème bi fi muy am ji bi baal ma mooy ah, parce que le très rapidement. Ah, hmm, en tant que Grimaldi comme compagnie internationale. tu vois bu fekkee ni dafay signer contrat avec un transitaire boo xamante ni moom lay moom lay liggéeyandool transfert boobu bu fekkee ne respecté wul engagement ak compagnie bi est-ce que le bon la client bi nga xam ne ah oui tu es suivi c'est le client qui subit c'est le client yow yow pare nga xam nga client bi yow subir nga supposons suba nga ñëw ba régler sa dossier uh-huh. léegi booy jaay sa marchandise bu dee marchandise booy jaay la mm-hmm. da ngay xool li nga ci daj yëpp nga teg ko ci prix bi donc consommateur bi ci boppam moom itam da koy subir mm-hmm. donc là c'est des problèmes yoo xam ne c'est li gën daal mooy mm-hmm. ñu am benn système informatique bu baax. bu baax mm-hmm. yow ñu informé la. Mm-hmm. que y' a pas de problème ñoom ñu jël engagement que ñoom amuñu problème pour sa marchandise bu jee foofu. Mm-hmm. ñu jël engagement bu ko amul nag yow mën nga dem tribunal. d'accord nga demander dommage et mais en ce moment dañ lay fay. alors président. Euh, maa ngi jégalu ah yegsi naa ci foo xamante ne nii damay def ay questions yoo xamante ne nii yu direct la. eh Johnny yow foog naa ko nar a jëm. <laughs> président Boubacar Camara candidat à la présidentielle da am double nationalité. non mais lan laay doon double. ah damay laajte rek. mais est est-ce que man yàpp naa yàpp naa sama bopp ah, ba am double nationalité di ko nëbb ba dem def candidature tamit nit da xam fooy. man j'étais avocat damay laaj non am na ñu koy wax ah. am moo tax ma laaj la ko. ama gars yi bu ñu la ko question yi ñëw yëpp nii la mel. ama gars yi bu ñu la contrer. nañ <laughs> man bi ma nekkee avocat def suma école avocat ba pare temps wu Sarkozy la boobu immigration choisie la booy defar sa formalité dañ wax ndax da nga am nationalité jox la këyit ne la demal def mais man mosu loolu mosuma ko calculer. ko calculer daal. donc loolu et puis quand même y a un problème d'éthique quoi. nga ñëw am double nationalité ñu ne la pour nga nekk candidat waroo am double nationalité. nga nëbb ko mais tôt ou tard day feeñ. day feeñ. mais quel gàcce yow lan ngay wax sa njaboot lan ngay wax sa nit ñi la respecté nga ñëw ne dama doon nëbbal sama double nationalité bu mu feeñ fang. mais gàcce googu man xaju ma. gàcce googu xajoo ci <laughs> mais président Boubacar Camara. franchement euh, euh, lan mooy ay liens ak le le leader de Pastef muy Ousmane Sonko ndax souvent très souvent dañ naan moom allié Ousmane Sonko la d'ailleurs sa dem nañ ba naan candidat la boo xam.